ma jox sunu kilifa sunu xarit sunu soppe Seydi Abdoul Aziz Al Amin porte parole Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum khalife général Tijani lillahi darruka min cheikhin yadullu ala mawlaaw qawlan wa fi'lan yabna usmana hal lishuyukh wa in jallat maratibuhum إلا تلاميذ إلا قمنا عثمانا سيري حاج مالك لا يكفينك شيخ غيره أبدا إن كان يمكن لقياك من عثمانا فكم وابت مئات كم وابت ألوفا كم وابت كرات يا ابن عثمانا Maodo kam aabidin zaayidin kam aalimin wariin kam saalikin waasilin lawlaaka maa kaana kam tansurul ilma kam taqri duyuufa wa kam tudri ilaaha wa kam abgadta shaytaana kam silta kam izza kam basharta kam wala kam كم كم وكم ثم كم قرش مكيرانا سيد الحاج مالك مدرسا كل علم كان مدرسا من المدارس بدانا وسودانا سيد الحاج مالك أتيت بالدين أتيت والدين يشكو وهو مغرب مغترب إهانة وسوداد وعدوانا مولى فقمت مجتهدا في ذاك منفردا لله مستنجدا بالله مولانا سيد الحاج مالك فقمت مجتهدا في ذاك منفردا لله استقبلتهم بسياسات بأن تفعوا ووصلوا للعلي مصدر لقاني مصل موضوع njàpp taxoon lex yey lërëx su joota defoon jabuy melax mii noon na it dajaay bu sax cërëm ya dootunu sanax yaa ma toroy si kuloroy Cheikhu Tiijaan Cherif la roy te Cheikhuna waaju ko roy sunna yonen bi doo ko rax Maodo da lay digal du la dugal da lay yëgal la lay bégal digala la ëllëg mbugal tele jafe la yàlla wa mubaarakatan wajal idaay ziyaarati hmm. وتقضي بها يا قاضي الحاج حاجتي شحاج يا ابن اسماعيل سيدنا قلت العباد جميعهم الى الله فانقادوا بحسن سياستي ولين واداب وحلم وسودد وحمل أذاهم دون من وسمعتي وحاربت إبليس اللعين وحزبه بحزم وعزم واصطبار وهمتي وشيت ركن الدين بعد انهدام بهمت بهمتك العليا لدى كل بقعتي زايا بالعباس يا شيخ أسست بأمركم لله في كل بلدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayyidina muhammadin nabiy almustafa alamin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi diin go bokk yi fi daje ñun amuñu lu ñuy wax tey parce que dañu wax ni ñaar day fas làmmiñ mbégte mu ëpp day fas làmmiñ mer bu ëpp day fas làmmiñ ñun nag dañuy bég ba xamuñu lu ñuy wax waaye ñu nuyu d'abord ñi fi teew daanaka nuyu sa bopp la axi wa xabibi alxalifa ababacar si mansour nu xayi xadaratu cheikh axi wa xabibi alxaaji malik si xalifa ababacar si nuyu axi wa xabibi alxaaji malik abdul aziz nuyu kilifa yi fi teew yépp mënuñoo tudd ñépp waaye mën nañoo wax ni ku xadara sayidil xaaji malik jaboote rekk teew nga ñu tudd ci suñu baay suñu xarit al imam xalifa Kebe mu yóbbaale nag xula xulafa yi fi daje yëpp ak aimma yi fi daje yëpp ak ulama yi fi daje yëpp wal muqaddamin mu yóbbaale suñu nuyoo suñu nuyoo ci mbooleem kilifa yi teew mbir mi ñaari daayira ñaari fédération ñoo daje woon di ko organisé mu di fédération daayira tijaan bu Dakar ak fédération dairatul ahmadiya ñoo àndoon joxante loxo seet ci daaira yi ñi leen man jàppale ñu àndandook ñoom di organiser ziar bi ñoom ñaar ñooñu kenn ku nekk waroon na wax kii wax ci turu dairatul kiram ndax moo représenté dawair kii war a wax moom itam ci turu dabair ya mu ëmb waaye comme mbir mi dafa xat te li ñu bëgg a wax rek mooy compte rendu li ñu dajeel ci organisation bi ci ay yomb-yomb ak ñu leen jàppale ñu ni loolu jarul ñuy tardeel jataay bi gërëm leen sant leen ndax jàmbaar lañu nag depuis de mois ñu ngi daje ca Dakar ca siège de la fédération di waxtaane ziar bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñu gërëm leen sant leen nuyu suñu baay alxaaji Tafsir Sakho bàyyi tam suñu bàyyi la suñu xarit la di nuyu suñu doom bu baax maam mu si mu sëriñ Mouhamadul Moustapha Jamil di nuyu suma collaborateur ci liggéeyu kër gi mu di Cheikh Ahmed Tidiane si Mouhamadul Mansour bii toog ci sama wet lu ma mënul doxi moo koy doxi lu ma mënul def moom lay woo ni ko demal def nangam ñu nuyu Mouhamadul Habib si mu Cheikh Ahmed Tidiane si xalif général de Tijane yu nuyu Babacar Sy Abdoul Aziz ak ay bokkam yépp di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane maanaam di nuyu ki ma tudde borom Tiwaawan mu daal Alxaaji Malick Sy bu Cheikh Ahmed Tidiane Sy xalif général de Tidiane moom laay tooñ toujours di ko tudde borom Tiwaawan ñu ngi nuyu itam ba tey ci famille bi la Seydi Abdourahmane Sarr Sy sëriñ Cheikh benn xarit rek la amoon ñu xamale ko ko foo ko gis mu ngi dox service sëriñ Serigne Cheikh fu Serigne Cheikh nekk moom lay nekkal ndeysaan mu ñàkk ko ñàkk bu bu bettee yàggul dara yàlla jox ko doom bu góor mun ma ah kii de Abdourahman moo ko moom daal di ko ko tuddee mu tudd Abdourahman Sarr Sy ngi nuy Mouhamadou Mansour Sarr moo jël taw Serigne Cheikh bu jigéen ngi nuyu suñu jarbaat alxaaji du Sàll doomu soxna Safiyatu Si ak mboolem sëttu Seydil Xaaji Maalik yi fi teew ñépp ñu ngi leen di nuyu ndax kenn du lim la nga am yépp di nuyu préfet département bi Maguette Diallo ak délégation bu fort bi mu àndal jóge ci président de la république monsieur Macky nuyu maire de la ville de Tivaouane ñu ko Alhaji Malick Diop du nuyu député démb Diop si du nuyu beneen député di suñu doom Cheikh Tidiane Diouf du nuyu ki nga xam ni tey mën naa wax ni mooy suma taaw mu di alxaaji alelo

di mbokk di taalibe te di ko jëfe waxtu mu nekk di nuyu mboolem organisation politique yi fi teewu di nuyu professeur yi fi teew rawatina nag al asatiza al ajilla al mabuthuna al azhariyun fi mahadi cheikh al haaji malik si te mooy ñi nekk ci institut el haaji malik si di fa jàngale di suñuy mbokki professeur yu jóge ci Égypte gouvernement bi jox ñu leen pour ñu jàppale ñu ci école boobu su ko defee ñun li ñu waroon wax dañoo daje segg ko benn commission moo daje xool bu ziar bi ñëwee lu ñu leen war a wax ndax woote bu day ni ku ko woote nit ña waruñoo dem ak loxoy neen war nañ fa jële lu ñu mën a defaree seen bopp loola ñu daje seggu ko nag ca na ko bàyyi Abdou daan doxale yónnee nañ ko Baye Makhtar Kébé démb lépp di wax Cheikh Ahmed Tijani ci ni taalibe war a mel ak fi mu war a jaar ba nekk taalibe cheikh te loolu rek leen indi ci kër gi leneen indiwu leen nekk taalibe cheikh rek ndax ku nekk taalibeem rek sa affaire baax na fa ngay jaar ba nekk ko nag moom lañu dajale ni ko résime ko rek ci façon ndax lépp kenn mënu ko wax waaye nag am na lu ñu ci mën a jukki wax leen ko ngeen jariñoo ko su ngeen demee fii ba déwén di mën a am lu ngeen di waxtaane ci seen tariqa ci seen xadara bii ngeen ñëw comme ni ko bay alxaaji Malick si waxe ak su ma nijaay sëriñ mbay te moo di xadara la boo xam ni yéen a ko moom ñun ñi fi toog dañ leen fii nekk rek ngeen daw wuti lu ngeen am ñun tam ñu toog fi di defar li yàqu ngeen ànd ak ñun ngir yàlla ndax Cheikh Umarul Fuuti radiallahu anhu daa ni inal waliya laa yuraf wala yusxab wala yuxdam illa lillah wa man kaana kadalika intafaa bihi dunyan wa uxra nee na wali yu booy moom na yàlla tax boo koy xam na yàlla tax boo koy defal na yàlla tax mu ni ku nekkeek wëli yi ci loolu danga jariñu ci moom àdduna ak alaxira ak lu mu yàgg-yàgg ne bu fekkee ni itam nag loola taxul nee na safaan ba rek mooy am su ko defee loolu rek liñ leen bëgg fàttali ni ci Ahmed Tijani radiyallahu anhu mooy sunu sëriñ te moom dafa am nu mu tërale am ay conseil yi mu nu daan jox am ay leetar yi mu daan bind di ko yónnee mbooloo yi di leen wax ni ah man kat lii lii lii lii laa xam lu mu xam mu wax ko taalibe yi luy tax taalibe sowe lu koy defaral mbiram àdduna ak alaaxira mu wax la ko ko defee mu mel na kon wàccoo na ak ñun loole nag dellu ci boroom sëriñ Babacar si moom la ko nit ñi doon defal 1931 lañ ko commencé mu nekk bu ndaw daayira kiram di ànd ak ñi mu mën a àndal ci ay mbokk ñëw tiwaawoon samedi dimanche ba altine ñu xëy dem pir yandu ci kër Baay Alaaji Mat Siise ba saxaaru ngoon ñëw ñu dugg ci dellu Dakar mu ni ma bi mu fi jógee yow laay yónni ci sa papa Abdul Aziz ni la na wax ziar bi nu mu ko bëggee rek ñu defe ko noonu nga dem wax ceeg moom mu wax la lam la wax ñu di ko defal ba ni mu fi jóge sëñ Mouhamadul Mansour ñëw moom itam ñu di ko ko defal ba yàlla dogal la mu dogal mu ni ma man nag dama bëgguñu delloo ko ma bañ nekk ku ñuy ziar waaye ma bokk ci ñuy ziar ni ma bi des loo ciy def na ko ànd ak sarak yi na nga diisoog Serigne Babacar Mansour na nga diisoog Alxaaji Malick Abdoul Aziz na nga diisoog Alxaaji Malick Babacar Sy moo boo xasee diisoog ñoom ba noppi nag ba ngeen bokk dakoor bul dégloo ci kenn mantam amul benn at te duma dem ni ko nu ñuy defe mu wax nu ni mu ko bëggee ñu defe ko noonu loolu nag moo tax te moom ñu ñëpp mooy suñ patron loolu la yàlla dogal ci moom mag ñi may nañ ko ko mu nangu ko xisa bu gudd la xaju fi waaye daal ñu ñëpp daal mooy suñu kilifa te doy nañu kilifa nu ngi koy déglu la bay Alaaji Tijaan daan wax rekk wane ne wéy ñu ni wéy nga ni non ñu ni non nga ni wéy non ñu ni wéy non mu jox tak noonu la ñu fas yéene nekk ak moom ba ba ñuy wuy ji yàlla yàlla na yéex su ko defee kon nag ñu ndokkeel toute la famille si waaye ñu boole ñu jëkk ci nag ñii mu ma booleel nooy tam waxuma rek naa fuuyoo sama yëf dafa ma ni del diisoo ak ñoom lu ngeen bokk d'accord nag loola d'accord naa ci moo tax fasuma yéene def lu ma diisoowul ak ñoom ndax sëñ Babacar Si dafa daan wax ni lu benn lu xel rafet rafet benn xel ñaari xel a ko gën rafet mu ne ñaari xel ñett a ko gën rafet kon nag fa tabarakallahu mantam tam damay dellu si nag nekk seen surga bala maa def toogook ñoom ñu génn suñu xalaat ñoom itam ñu génn seen xalaat ñu tam-tamal ko bu ci gën rek ñu jëfe ko su ko defee nag kon tabarakallahu ñu jox Pape Makhtar Kébé mu mosal ñu tuuti rek ci li ñu tënkoon guddi na sax mais baax na xamoo ziyaar bi ku fi jóge sa ajo faju man maa leen ko wax billaahi loolu defuñu ko rek pour ngeen kontaan mais def nu wóor ku fi teew rek soo demee sa ajo dana fayu su ko defee na kon guddi na waaye benn yoon la ci at mi te waroon na nekk deux mois yu ne ñu daw daje ci Tiwaawan ñu wax ñu fu ñuy teg suñu tànk ndax ni jamono mel ak ni mu jaxasook te Seydi Hadji Malick Sy wax na ko léegi ni kër gi mooy yaakaaru nit ñi suñu jaaxle fi la ñuy ñëw pour jël leçon leçon bi war a seen jaaxle te loolu defuñu ko yàlla moo ko def yàlla moo ko def su ko defee kon nag toogaay yi yàgg waaw mais dañ koy def maa leen gën a màggat fuuf te maa ngi toog te bu jeexul du ma dem dafa ne kon nag toujours damay wax ni ku xeebal nit soxlaam yaa ko tooñ mooy jotaay bu day nii nga bëgg fala fala ko rek ñu dem déedéet jotaay bii Cheikh El Hadji Malick façon na ko di ko def yàlla moo ko mottaliwul sëñ Babacar Si radiyallahu anhu moomu ko nettali mu ni Cheikh El Hadji Malick daf ko wax ni ko man daal bu déwénee su ko yàlla dogalee bëgg naa taalibe yépp ñëw jullee si ci man kori nu ko ndax gàmmu dafa yaatu ñëppay ñëw te itam nag doo am temps boo mën a waxtaanee ak sa njaboot li nga leen war a wax te am nañ waxtaan yoo xam ni sa njaboot gamu concerné rek ñoo ko war a fekke mu ni ko ma bëgg nag désormais at mu jotati bu julli kor yi jotee nit ñi ñëw julleeg man fii kori li ma leen war a wax ci diine ak tariqa yépp mu wax leen ko muy sama bésu bopp ak ñoom mu ni waaye yàlla mottaliwu ko su ko defee kon ngeen toog déglu lu am lii salo Cheikh Ahmed Tijani yónnee nu ko nun taalibeem yi ku fi jóge ndegam am nga xel daa xam fooy teg sa tànk su ko defe na kon ñu ngi nuy ñëpp di ziar ñépp comme ni ko kilifa yi waxe ñépp lañu ñu ñépp lañu la ñu li ñuy wax noog yéen ko bokk Tiwaawan noo gi ko bokk li ngeen fii wut si rek lañ fii xaar dafa am bés maa ngi amoon lu ma jot téye ma ay fan maanaam benn coroxaan ay sëqat rek sëqat rek naa mën naa ne léeg jëlal ndox sàngam mag te man dama xaw sensible ci luy dem ci sama biir ndox mu mu xamul fu mu jóge duma ko naan buuxal ci léeg ndox mi may naan noon may xam ni ma ko bëgge ma ñëw nag di ziar suñu Babacar sëqat si jàpp ma foofu ma sëqat tuuti waaye ma continuer suma ziar ba mu yàgg nag ma ëñ rideau bi tuuti coppati ci suuf si seex benn waay bu nekkoon sama gannaaw yu ko ba tolloog sama nopp man ndeke yéen itam da ngeen di cof di seex man ko ah dama gis ñépp di ko def rek ma def ko pour wan leen li ngeen bëgg li bëgg ci ñëw li ngeen di wut ci ñoom moom lañuy wut ci moom yéen ak seen tolluwaay nun ak suñu tolluwaay su ko defee kon xadara bi ñoo ngi yéen a ko bokk noonu la Seydil Hadji Malick tërale noonu mu tërale nag noonu la yeneen bi tërale woon te bu mu nekkee Medina ba taxawal jàkkaam ju tedd ja boobu taxawaay la doon taxaw ak saxaabaam yu tedd ya loolu nag ba tey moo fi nekk noog yéen nu bokk ko ngeen war di xam waaw liñ leen li liñ leen fi bàyyil muy seen ndono lan la fan ngeen ko war a jar su ko defee nag kon mu toog tuuti mu juqat ci rek ay passage waxleen ko ngeen yóbbaloo ko ngeen yóbbaloo ko su ngeen demee ci seeni néeg ba wéet ngeen di ko nafar muy waxu si Ahmed Tijani loolu rek lañu am ñun ci li ñu doon wax waaye leneen moom mënuñu koo wax tey ndax dañ ni ku ñu teral te bégoo ku la dëbb ci mbaam du fay dara ku ñu merloo te meroo ku la dëbb ci dof du fay dara su ko defee na kon ku ne xam na ni ku day na Seydi Cheikh Ahmed Tijani ku mu ni maa ngi def confiance ci moom bu nit ñi tàccoo yi danga war a jàq ndax danga dul xam danga nga koo mën a àggale waaye nag xanaa mooy wéeruwaat ci ñoom rek su ko defee kon itam fa ma jëm yàlla mën na dogal ma yàgg fa ñu ngi jox nag Pape Makhtar li nga xam ni tànqoon nañ ko segg ko mu boole ci suñu enseignement yi ñu war di jëfandikoo ngeen yóbbaloo ko ci bés bu rëy bii bés bu tedd bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.